As-salamu alaykoum Man geni kep koufite yo euh, Deni geni Deni geni Bar bar bar bar di delloo nuyuwaat encore samay naataangoo bu ma duggee ci li nga xamante ne tey moo ñu fi tax a ñëw muy vidéo yi am loo xamante ni nag dañ ko baaxoo gis daanaka nit boo koy woy danga koy woy ndax dafa diis poos wala danga koy woy ndax la nga yaakaar ci moom ah Makhtar li gis na ko damay laaj rek lenn ah. bul wàññi mel ni bii de mooy kii bi bul wàññi mel ni dajale leen. ak fi jamono toll nii fi jamono toll benn nit boo xamante ni yàlla may na ci àdduna xëy na doole yi poos. bu ko neexoon investir ci leneen dama lay wax li ma dugal ci lii.

whatsapp group groupe whatsapp yi lu mat plus de cent groupe whatsapp am na ci fondation Kër Rassoul fondation Kër Rassoul am na yeneeni yoon am nañ site internet am nañ leneen ak leneen mais fondation Kër Rassoul am na ay waykat yoo xamante ni tey li askan wi bëgg parce que giiwaay kenn waru ko umpale moom mooy le serviteur du prophète des temps modernes

Il est extrêmement rare de voir un jeune de sa génération écrire plus de 1290 poèmes d'Ekiko Mohamed C'est qu'en fait, il dort avec le prophète Mohamed, il se réveille avec le prophète Mohamed, il pense au quotidien au prophète Mohamed. Et c'est extrêmement important. Aujourd'hui, je peux vous assurer une chose. Cher Abdelhadja, il a un pied ici, il a un autre pied au paradis. On attend le fils, on attend la Waouh! Parce que, on a des cornes Si un Mohamed, serait là aussi.

j'ai eu à décortiquer un peu son texte remède du mal le simple fait de l'écouter le simple fait d'écouter ce poème Fatna na xam ça je vous le dis le simple fait d'écouter ce poème le remède du mal puisque vous m'occupez de l'église de à doog Mhm. waouh mu gëm la mu gëm te kooku le soo ko ne di wax Mohamed léegi sallallahu alayhi wa sallam mais c'est vrai et quand il te parle de son texte c'est comme si il parlait avec Dieu et c'est comme s'il parlait avec le prophète Mohamed Seydina Mohamed parce que le ñi ko am bariwul ñi ko aujourd'hui je pense que

Quand je parle du prophète Mohamed, je suis hors de moi. J'ai fait, j'ai lu beaucoup de textes, de grands textes, et œuvres monumentales. Mais puis, un fondamentalement. Moi, je l'ai connu, le cher. Il était encore au lycée, dans une école privée catholique. Mais, Abdallah Yalé, il dit « au lycée, il était on avait été détecté eh bien euh, mandat bi nga xam ne nekk du ci moom di leen wax ni na nga ko bàyyi xel ku baax bi noonu asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh rajim bismillahi rahmani rahim allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam je pense que tey phrase boobu moo ma ci boole parce que yàlla def na ni du ma xëy suba ba ngoon te jullee ma ci yonente bi su ma kontaanee su ma jaaxee su ma bëggee dara su ma tiitee lépp loolu laay def ndax loolu lañ wax ni ma jël ko nga wéeroo mu doon sa wéeruwaay donc je pense que tey ñun ñëpp ñu fi teew ay doomu aadama lañ maa ngi jégalu nag ci baat bi mu xaw a mel dama xaw a jagadi mais pour man yàlla moo ñu bind ñun ñëpp te dafa bind doomu aadama yi te yemalewu ñun ñëpp mënuñu doon ay imam ñun ñëpp mënuñu doon ay président ñu ñëpp mënuñu doon ay ministre yàlla day bind ñi nekk ci lii ñii di yëngu ci leen diversité boobu mooy waral àdduna am donc malgré tey bu nekkee da nekk artiste nit ki ci lépp loo mati nekk di yëngatu war nga ci mën a jaamu suñu borom ci lépp loo mati nekk di ci yëngatu Mouhamad ne ki nga xamante ni moo tax ñu sàkk ñu war nga ci mën a def sa kéemtu laay kattan ba loo ci mën a liggéey la def donc je pense que tey bi appel bi amee loolu moo waral toog ma sax ñu toog di ñu ci xaar wala ñu ci woow dañuy def lépp li nga xamante ni mën nañ ko pour mën a ñëw wuy si parce que tey lépp lu waay ma di def ci àdduna te liggéeyaloo suñu borom liggéeyaloo rasulilah moo zéro moom mooy yam donc je pense que yëg-yëg moo ñu fi indi yëg-yëg moo fi indi keneen ak keneen te lépp luñ ci man mu ci suñu doole suñu kàttan ci suñu voix lépp dañ koy yëkkati di ko def donte dañu nekk ak nit yoo xamante ni ñu ngi yëngu ci jamono mais avant toute chose li njëkk li mujj moom mooy suñu ngëm-ngëm suñu foi te loolu dara duñu ko dindi moo waral suñu frère bi mu ñu woowee ak képp ku mati doon dañu ñëw ak joie boo xamante ni tey booy ñëw ba booy dem parce que dégg ñu lay wax souvent ci yaa rasulallah ba boo ñibbee yow da gën a am yaakaar dangay gën a am pas-pas te da gën a am espoir que ni nit ak lépp lu mati nekk ci àdduna fekk yaa ngi wóoru ci jëmm ji di Seydina Muhammad rek incha allah ëllëg mën nga am yaakaar. moom mooy li résumé léegi. parce que bi mu ñëwee dama ni ko duma la woy ci juddu duma la woy ci waasu dinaa la woy ndax yaay soppay rasulallah nee nga yonent bi yow a yow man itam ma wëlbatiku ni la yow a yow ndax l'ami de ton ami c'est ton ami ki bëgg ki nga bëgg da ko war a bëgg te moom gis ñu ci moom leneen lu dul soppay rasulallah